waaw euh, damay njëkk euh, sant yàlla bu baax a baax alhamdulilah rabbil alamin euh, di gërëm wandar di gërëm jeunesse bi di gërëm sama bureau xëy na su ma nee sama bureau damay tudd Momar Fall bi nga xam ne mooy secrétaire général bi ma jox ko nuyoo bi mu nuyoo ma bureau bi ñëpp ak comité exécutif ak toute la jeunesse saint-louisienne je pense que bii moo suñu troisième année ah ñu ngi si bopp conseil de la jeunesse conseil de la jeunesse ban ka day taxawal ban ki day jël lenge yi fekk ñu fi dara fekk ñu fi dara koku deug la réalité la euh, tay yalla sutural nañu ba tay ji conseil de la jeunesse objectif yi ñu amone ak vision bi yalla jappal nañu ba suñu ambition ñu ngi matal parce que li ñu gëna jital jiital si wàllu ambition yi di si gëna am solo moy ndaw yi soxla ko moy la formation euh, dama lay wax rek si gattal tay ji ñu nu formé si wàllu ndaw si walu leadership si entrepreneuriat si wàllu informatique etc. cetera et 844 ndaw yi nga xamné formé nañ len si walu éducation bi nga xamné ndaw formation na gëna soxlo si lépp lo gis ci kër àdduna euh, je pense que tay ji si walu environnement li nu def si walu nettoiement parce que dañu am ay matériel de nettoyage. yi nga xamné suma ben xarit bu ñuy wax euh, euh, monsieur Diagne ta nek ministère de l'environnement

Euh, je pense que tey ndaw yi djel nañu ñaar fukki ndaw ak juróom parce que avant ñu leen doon djel doon def sélection 40 jeunes. Euh, tay jeunes yoy ñu formé tey jii créé nañu ci biir jeunes yoy 5 GIE yi nga xamni ku ci nek jamono ji may waxante ak yow ñu ngi défar sen ay kayitu GIE di kay formaliser pour ñu am kayitu groupement d'intérêt et économique. pour nu paree si lolu groupement bu nek dans le financier 2 millions. 2 millions bi nga xam ne incha koy def daan si invité ndar yëpp daan si invité jeunesse bi yëpp daan si invité autorité yëpp ñu ñëw fekkee lu mel noonu parce que ñooñu déjà bu leen joxee loolu rek créé nañu ay emploi je pense que tey jii dama la mën limal parce que temps bi du ñu ko may lu ñu def si ay action si côté boobu rek tey bëri na bëri bi nga xam ni tey bu ma ko tudd fii ba guddi émission bi mën na bañ jeex ndax réalisation yi def conseil bi kenn xamul ko woon tey ñëpp xam nañ ko ci Sénégal ñëpp xam nañ ko ci ndar tay bokku na parmi les meilleurs conseils communaux du Sénégal Beaucoup parmi les meilleurs conseils communaux de la région de Saint-Louis du man maa conseil président conseil régional du démentir le président du conseil national du démentir le gouverneur de la région M. Aydrana, nous a écrit une lettre de félicitations et d'encouragement monsieur le maire Mohamed Mansour nous a écrit une lettre de félicitations et d'encouragement c'est très simple xam institution York. Euh, le conseil communal de la jeunesse si texte yi dañu ni commune de communes yi ñooy premier partenaire am na ay communes yu bëri yi nga xam ñu ngi liggéey ak seen maire man du ma ni liggéeyuma ak sunu maire sax damay wax rek ni leen début bi le maire nous a appuyé le maire nous a encouragé jox ñu une somme de 1 million jox ñu auto, jox ñu carburant xëy na loolu dama koy ñaan yàlla parce que même bu dul man na ko def parce que dama bëgg loolu mu continuer ñun suñu mandat bu jeexee ñeneen bu ñu ñëwee yaa ngi dégg la mairie de Saint-Louis continuer loolu parce que man liggéeyuma pour jeunes yi rek damay liggéey pour le futur ñu ñuy remplacer ji l'essentiel li am solo maa ngi ñaan la mu doon continuer na continuer parce que lu baax la parce que si cadre dëkk bi dañ koy def si cadre ndaw yi dañ koy def di wax ni itam man maa ngi koy demandé mu gën a jàppale conseil benn siège parce que siège boobu du pour ñun xëy na bu ko joxee tamit bon ñeneen ñay ñewi ci inshallah ñom jëli siège nous équipé kon dama lay wax rek ñun ñi fekk ñu dara mais bu dem dañ fi Nous lu xel ndaw pour sama dëkk mouvement ndar sa kalam yàlla mën def sutura sunooy objectif sunooy ambition ñu atteindre que parce que ñun amuñu lu dul ndar amuñu loolu suñu dëkk te Saint-Louis si wàllu boppam ñun demuñu bitim réew demuñu Dakar ñu ngi Ndar xam nañu problème yi fi nekk mais li si kalam réew lu ci bët nanu liggéey rek seul le travail paye ñu ngi si yoon bi di liggéey. mais ñoom est-ce que xamuñu xamuñu yow yaa euh, que ñoom a fakkastal. non xam nga kenn mënu ma fakkastal mhm. parce que wu tax kenn mënu ma fakkastal jullit laa doomu aadama laa dama gëm sama lépp gëm ni booy liggéey yàlla moo lay ubbil ay xewal tey ji ay partenaires yu bëri ñu ngi daw si di ñëw si ñun ndax suñu taxawaay si dëkk bi suñu taxawaay si jeunesse bi ak liggéey bu leer bu wóor bi ñu defal ndaw ndari kon tey jii

incha allah laay jéem a wut laay jéem am loolu nañ ma yare parce que boo bu fekkee ne yow sa dënd axuraane ngi si su fekkee ne yow sa dënn xam nga li yàlla ak yonent bi wax dangay ngay jël lépp tekk si loxo suñu borom xam ni yoon bi nga dem buy gëstu xoolal sa kalam rek li si kalam rew jébat di lay gërëm di lay nuyu bu baax wax dëgg yàlla lii am na solo nga tànn ma si sa invité ah nga boole ma si kon déjà c'est encouragé yow tamit gis nañu liggéey bu am solo bi ngay def si réew mi liggéey bi am solo bi ngay def sa dëkk muy Saint-Louis kon je pense que tay bo fi nekkalee Pikini kon je pense que nga bok si ñi nga xam ne boole nga ma say invité damay gën a rafetlu di wax rek wa ndari ñun ñëpp nañu and bokku nday ak bay ñu ñëpp nañu am vision gaz baangi fi nañu ñaan yalla di wo borom xam-xam nitu yalla yi nanu ñaan yalla jàmb am si gaz bi di ñaan le président de la république bu yalla défé gaz bi génn Sénégal gi ñoo si war jëriñu mais ñu ngi ñaan Yalla tamit nañu ñu jàppale ba Saint-Louis gis ci bopam ci walu développement ci walu tourisme ci walu pêche ci walu agriculture pour ndaw yooyu xam ñoo wara am liggéey ci loolu mëna développer seen dëkk Saint-Louis je vous remercie. ok merci.